marhaban feebaru coronavirus gi yaa fu mu toll ni tembe ci Sénégal jéggi na a bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay l'observateur mi xam le ni daal nay tëral lu ëpp fukki junni ci ay doomi aadama faat itam lu ëpp ñaari téeméeri bakkan lu ni mel nag moo waral nguur gi fas yéene indi ab jubbanti ci doxalin wi jëm ci yeneen dogal yu bees suñu fas yéene jëlaat yu mel ni fexe ba askan wi ya di soli masque par la force ku ci lank nag ñu daal di rëkk say ndigg l'observateur mel ni kuy wax naan lépp état bi la rek ndaxte taxawaayam daa musta jekk loole nag moo waral dab setal gi ak lambatu gi bu teyee ñu ne lii bu subaa ñu génn ca raxas seen loxo bi mu set wicc waxaat leneen mbas mi jaaba jonge ci réew mi ak li mu ñu ci ñàkk seen bakken mi tàmbale jiggi dayo moo waral ba kilifay réew mi daal di génne yat wax bu ñu sukkandikoo ci yéene kayu enquête tënku rek mbaa yat dal ci sa kaw ankay ah police gendarmerie ak larme gi ñoo fas yéene wañ loxo askan wi ngir kenn ku nekk ci ñoom daal di tënku ci mesure ëllëk ëllëg ci ajuma ji nag lañ koy tàmbale jëfee ci biir réew mi ya enquête yéene kay ne ya bërëbu jaamukaay yàlla yi marché yi ngénte yëkk dëj yi lépp la aali nguy njaay ak naatàngom bu ñu dënk wàllum larme gi fas yéene teg seen i gët saytu lu fay xew ndaxte njiit réew mi di Macky Sall ko sant moom Macky Sall daat nay génnee xiir bi de laas yéene kaay ne ñu waa caw sa xiir rek léegi moom takk masque par la force rek ku ko defut ñu rëkk sa ndig wala ñu alamaan la enquête yéene kaay ne ñu waa président Macky Sall dafa mel ni daal léegi moom foowatul ci yëf daa mel ni bëggatu ci dara aw yatam daal la gàdduwaa ngir def lan tek ñuy wone ak dëgër bopp ci dogal yi fi nguur gi teg ngir mën a jàmmaarloo ko mbas mi yaa suñu naatango yi dolli di xam le ni yaa lu weesu ajjuma ji dina bëri ay dogal yeneen yu muy teg moom président Macky Sall ngir forcer nit ñi ñu sàmmoon teg digle yi yaa source a mel ni kuy wax naan du yombu de coow li sax ma ne sañu jàpp ni tambali tàmbali na ah kay te ndakaaru la doore yaa ndaxte suñu naattango yi yaa ñu ngi xam ne ni yaa barki démb njaay rek daat nañu teg loxo juróom ñetti téeméeri doomi aadama ak fanweer yoo xamante ni yaa ñàkkum solum masque moo tax ñu jàppale na ci ñooñee lu toll si ñetti téeméer ak ñeent fukk ya ci ndakaaru gi la ñu nekkee yaa ci joju le jamono la témoin quotidien mu ngi xam ne nii feebaru coronavirus gi bëri na ay boroomi daraja yu mu tëral ci réew mi dem sax ba di leen di faat lu leen ko yóbbee bokk na ci ne dañuy ragal wax ni yaa amee feebar bi nit ñi di leen di ak di leen di saji xef moo taxit métta ñuy toog seeni kër ya di faju ba yëf ya nag mujj leen oppi yoxo feebar bi gàñe leen leneen li yéene kaay xëyee bokk na ci élection locale yi ñuy dëgmal la Sud Quotidien nañu waa yooyu lay jongante yi ñu jàpp gën kaay yàgg ci weeru mars ci atum 2021 lu ci xeeñ jamono ji le ne neexut déedéet ab dakk dibu rapport moom la suñu naattango yi jàpp ne daal moo ciy xeeña mbas mi ñu gane si ci biir réew mi moom la ñu jàpp ni mooy tax ba ñu mën a dakkal yooyu lay élection ndax nag lépp la gàllankooral ci wàllum politique suñu naattango yi ñu ngi xam ne ni dialogue politique mi ñu fi dooroon jamono ji lépp ci tagatembe ya ngir coronavirus bi te xamuñu ana kañ lañ ko fas yéene wéyalaat ci boobu la dialogue na ci liñ ci tënkoon mooy càmbaru ñëwaat ndar keppe ko yéen kaay l'observateur mi xëy ak ñun niki tey cib jéye mi am fale ci Amérique yéen kaay groupe Futur Média ne ñu waa juróomi doomi Sénégal yu bokk benn famille ñoo fa faatu ci lakk mi am ci seen kër gu ñu dëkk suñu naataango yi ne yaa police li mu gisangum ci enquête ba moo di ne lakk googe lu loxo def la jàngeen def